yàlla moom dañ koy sante yàlla rek di ko teg suñu di ñaan suñu borom teg loxoom suñu kaw rek mais lii moom xam nga ne moos dafa métti quoi dañuy liggéey nii te yàlla tax rek te loolu moom mun ñu ko bañ parce que ñun adduna bi la ñuy liggéey te nit moom booy liggéey adduna bi rek pour man rek waroo ragal dara lépp dañ ko wér si loxo yàlla quoi waa xanaa di ñaan doomu aadama yi nag ñoom ñu ñu ñu gën a sàmm ñu sàmm seen bopp ñu xam tamit ni ñuy ni ñuy ni ñuy dundee si mbalit bi quoi parce que mbalit bi laajul ay ku lekk rek sànni wala ku kii rek sànni lépp comme ni nga comme ni nga askan bi bëggee rek na affaire yi set loolu moom li ñu wax maanaam lenn kese la maanaam donc ni ko président jot a defee nii dana alhamdulilah parce que li ñu faral di wax rek bu ko nekk toogee sa kër kenn ku ne nekk si la nga nekk li war a nekk rek maanaam amaana feebar bi mën nañu fii lay yem kon président def nii. moom maam dañ ko mën am ba lépp lu liggéey pour mën a xeex virus bi dañ ko def pour mën a xeex virus bi yàlla dimbali ba defal ñu taw feex kay ñu ñu moom xam na ne liggéey liggéey mbalit moo quoi te doomu arama li yalla daf yow nga war mënu noy ak ñu jox la masque li nga mën noy ci 100 masque ak masque bi nii mënu bokk quoi mara daal dañu dem ba bu sale sax wala leneen sax mais dañ koy wessu loxo yalla parce que nit mënu takali taxali kon na ba nga wacc ko doo dindi mënul nekk. auto mbali mom sax su day ñew kep ku deg auto mbali bi klaxonné da nga wara genn rek nga indi sa parce que mbalit denc bi ko denc amul ben importance mbali ke mënu ko denc kon bo defé sambalé mo auto bi dégg auto bi jël nga dem sotik sa auto bi so auto bi ñëwé nga jël sambalé nga yobbu do mu dañ koy dañ koy dañ koy lancer képp koo xam manam sénégalais la dañ lay dañ lay lancer message bo manam balé bi dañ ci kër gi wala taay lay dem wala nan dama japp ak yoyu li nga japp japp yobbu mbalit mo mo gëna am importance amana ci li li nga nekk kon bu dégg auto mbalit nañ génn bàyyi lépp lu def rek ñu dem yobbu ñu dem yobbu mbalit bi su ko défé manam nit ñi mëna nekk ci jamm loolu moom dañu ñaan rek ñom ñu baña a tayal bu xar xale bu ñu xaar dala képp ku sa am chaque jour ñu ngi dégg oto mbalit chaque jour ñu ngi dégg mbalit saa ñu dégg oto mbalit rek nañu génn dem tuur yi nañu génn dem tuur loolu moo gën a am solo parce que li ñuy wax comme feebar bi nii ak genre yooyu noonu si mbalit bi xam ne ba dañ koy nooyu tey dañuy gis mbalit yoo xam ne léeg day da gis boo koy tuur sax pour mu tuur sax problème la parce que da da nga wut mbalit bi gën ko tuur waaw kon ñooñu nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax tey jëm ñu jàppale ñun parce que mbale bu seddee si kër yi rek bu ñëwee fii ñun dañu am problème mais bu seddul si kër yi bu ñëwee fii ñun dañuy gën am problème te loolu du yoon quoi ñu jàppale bu baax a baax ma